premier contact téléphonique wala sa premier waxtaan ak président Macky Sall. oui dafa am ku ma euh, moom moo la moo la passe téléphone nga waxtaan ak président Macky Sall à l'époque il était dans l'opposition oui euh, ma ne mais comment Amadou nan lay nekkee DG impôt ba pare di wax ak opposant boo xam ne dafa nekk en hmm. bis bi avec Ablaye Wade mais lan la la wax. non non ci ci waxtaan boobu ci ci premier waxtaan boobu. non d' abord d' abord Sénégal d' abord Sénégal. Hmm. ñun ñëpp benn lañu. xam nga am na loo xam ne bu ma ko meloon ak président Macky Sall je ne serai jamais son ministre des finances bi mu nekkee ci opposition. xam nga da ngay dégg rek ñuy wax bi mu nekkee opposition am na noo xam ne bu ma ko doxalee nag moom je ne serai pas digne de confiance. mais jour boobu ñu la ko passé téléphone dafa dafa mën naa la wax kan la. kan la. <laughs> naa la wax kan la dëkk ko boobu xaw ma kan moo la ko wax. <laughs> xam nga bëgguma trahir boo ko waxee nag moom mën na ko xam nga. je t'ai dit tout à l'heure tout à l'heure que je faisais confiance au président Macky Sall. lay wax élément yi ma am naal ci wax benn wala ñaar mënuma la wax lépp nag rassure-toi. c'était vrai en 2011 me recevoir euh, l'honorable député Farba Ngom dans mon bureau. le président l'appelle boobu le président était dans l'opposition xamoon naa ko bu baax nag aussi ah xamoon naa ko bu baax il euh, il l'appelle mu ne ko maa ngi bureau Amadou Ba far ba s'éloigne ñoom ñaar ñi wax mu ne ko maa ngi bureau mu passe ma ko quand j'ai eu le président il me donne des conseils d'abord parce qu'il a été premier ministre euh, góorgóorlu tu es sérieux tu es compétent da jàpp sa liggéey Euh, il faut faire preuve d'engagement et cetera vraiment euh, li nga xam ni kilifa dina ko wax un agent parce que je suis agent de l'État bés boobu la ma njëkk a wax ni bu ma yàlla mayee nguur gi naal na may ministre des finances. 2011 2011. boobu far baa ngi taxaw cest à donc yàgg na ma seetlu yàgg na xam mais li yàlla def. mooy bi mu ñëwee 2012 j' étais pas dans le gouvernement boolewu ma ci xam nga mënoon naa yaakaar may defu mais yàlla nga ko andi en 2013 yàlla nga ko andi en 2013 mën naa la sax may beneen. beneen bi wala la. c' était en 2018 mooy bi ñuy xam nga ñëw naa fi nga laaj ma affaire ministère yi. waaw ma ne la lan moo tax ñu découpler. waaw ma ne la finance ak économie ma ne la ñaari modèle yëpp baax na. xam loolu laa la waxoon fii ci sa télé boo boo bëggee mën nga génne waat émission bi. waaw rappelle bien de ce débat. mës na am débat ak président on discutait de ça. je et vous n'étiez pas d'accord. non je lui ai donné un point de vue xam naa la léegi xam nga fonctionnaire boo joxee sa point de vue bu sa chef décidé da ngay jàpp ni sa point de vue existé tul mu ne ma si bu ma la joxoon coordination bi li lay wax nii c'était en 2018. des ministères. waaw nga coordination bi loolu c'est une manière implicite de dire à la personne xalaat naa la peut-être ci primature mais loolu yàlla def na ko en deux mille vingt deux cela veut dire quoi moi j'ai pas d'autre choix moi que de lui faire confiance moo tax débat bi nga ma bëgg a andil sur les problèmes de personnes ou des débats bi ma bëgg a andil sur les questions de candidature moi je suis avec le président je lui fais totalement confiance je suis avec le président xam nañu ñun ñëpp xam na li mu bëgg ci réew mi incha allah. donc daal dina dina euh, am na yaakaar dina ñu waxtaan ci li nga xam ni am na ci ci réew mi dina ma ci wax euh, gis-gisam et je serai avec lui. alors euh, Dame Tall da nga def lii sëñ Mountakha wax da nga ko bàyyeel sa bopp bàyyi kook boppam. waaw.